min keta ata fono la fok ala tent mu ne lu fi jota xew loo xam ne làmmeñ du ko mun a nettali xanaa sant suñu borom rek ceerno abdourahman ay kiilaman toolu sominna alamaatinnay naaye taanu ay tuy bulu mu ne imam ceerno abdourahman imam ratib bu marsaasu lu mu fi jote jox ci ay yóbbante ci jullit yi yàlla nañ mën a ànd ak loolu mu amal leen njëriñ na préfet ba anaa noomankooɗo min ye wilindi ala on maari woye maa koye o bee wasalale suñ préfet ak àndandooram yi ki leen taxa a jóg yàlla na leen yàlla kooku mooy suñu borom na leen jàppale te dina leen dimbale tamit bari ngaa tentu mɔɔ bee me keekuwo lɔn mɔɔ bee me ke nɔ bari a ye keekuwo lɔn a y'a no a man k'olu i man ben i kuto nyanta ma bele da maa mege da mi n mɛ na dami mu ne naa la sant naa la ndaxte ñu bari xamuñ li ñu war a def te defuñ li ñu war a def waye yow xam nga li nga war a def te deful nga li nga war a def ak ñi nga àndal yépp katiloo be ke siyoti en métal mu ne jël bes aay bi yépp def ko toogaay jotaay toogaay loolu dafa naqari lool métti na naata min ñi ne ala bulu ŋaamira hanin janjanda asrodal yaakaar naa ne luñ doon sàkku si loxo suñu borom subhaanahu wa taala donte emale nañ ko fii ñu dal di tasaaroo am nañ ko ba pare e, ceerno nañol nii la arabi kaw mu ne imam ceerno abdourahman dafa am seen arab langue boo xam ne foofu la ñuy jaaree waaye man tamit dafa am suma benn arab langue boo xam ne man tamit ci lay jaar su may wax moolu ye fooy faŋ la moolu kama nit ñi na ñàkk seen bopp ngir nit ñi hani ma moolu ñi ni ala ye soy la le donte sakku nit ñi yàlla jox na leen nit ñi ba pare bu ma baala mu de mané wax bu reey la nga suur sa bop ngir yàlla jox la nit ñi alka arabi kan fonte bu kaa fasar ñamuy ni ngeen ay waxe arab man du non la koy firé du non la koy gisé ci pirine ala ko lay wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin يلا دفع محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يكيلا بند ورحمة ye kiilaa صلى الله عليه وسلم رحمة بوم bi sallallahu alayhi biri ye neemoo bee diyaate la a faata a bee la le a ye a la wala ye bee tuwaa bul biñ ko joxee moom xeewal rahma bi moom daf ko suur jël ko jébbal ko nit ñi yépp bi mu ko jébbalee nit ñi rek ndekete lépp ci moom la delluwaat encore a ko ana rahma al muhdaatu mu neemoo la ti bari yeen le مودال دي واخ سي بوبام ني انا رحمه واي مهدا من خيوال لا واي دنج ما ماي بي بار دنج ما جوخه موماتوما خيوال بي علال كراندي موي كالون علال اديا مو نيالي لا كي غا خامنا يالا موكاي جوخ لسين تي وخام غاكاي خامي اي كالون اما نيالي لا تي جيفام غاكاي خامي ني لا بدا علالا سو بوغي يالا فين كانا تو بو دارا دس سي صلوخ بو دارا دس صلوخ علاكو انما اموالكم يلا دفع وحنا إنما أموالكم استغفر الله يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم إبت جهاد لو كذا أنا قاعد في جهار على الدين فاتلو نجر نجس بدين يلا بيت ما يبغى إلى نافلو لا دان كي دان كوي دف كيسا ألال كيسا أم أم إبغى كله فان وجاتو لا نجر دف كيسا جم كيسا يرام nimmiye koɗo ɗi alala képp koo xam ne jël nga xaalis jox ko yàlla i koy faŋo te bataala ala ye nga ne yow sa bopp doo ko sonnal ala faatee la koɗo la nii faŋo yàlla suur na sa xaali ak sa bopp yow ni ye fay ni yow di ala la soo joxee sa bakkan yàlla i ma ala sey la koɗo la waaye mayloo ko sa xaalis a kon faatee ni yow lan faatee la koɗo la suur naa sa bakkan sa jëmm suur naa sa xaalis ali la ala la ali ye feŋo bee baali faŋ mu mu ne na ngeen wóolu yàlla ngeen jël lépp ci seen loxo jébbal ko yàlla bu leen desee dara mu ne alaal na joy yaake alee jumariyaatu arabu ma ne na ngeen jël seen place jaamiyaa bi waaye borom bi ngeen jox ko yàlla moom moo ko moom nii laata ila kodoo la alati su fekkee sa xaalis nga gën a gëm yàlla itamoo soonoo leela kodoo bee la ah doo mun a may kenn sa xaalis bi banila de ila ala le le ko doti wasfe ke sa borom ngana wol nga gëna wol sa kaw xaliss wallahi si la ko do beedi kadi ala en ala manta wala be ala tulé mun nga joxe sa xaliss bi yeb nak xam nga ne yalla demut te mom moy joxe xaliss mom mu ngi fa demut mom moy fen fen soto ku luway mun ta am sembeto ci doole kana ke ma koy rangut bu ko def ngay dimbal sa bopp ni ye fɛn sɔdɔ soo amee dara baa diŋolu to mbokk yi kana i kéemaa koyiraŋo ti bu ko def sa ñuy nekk sa dimbalekat i ye fɛn fɛn sɔdɔ londoo lépp loo am xam-xam kana a kéemaa koyiraŋo ti bu ko def dimbal sa bopp a bee géññin ti defal loolu yëpp n baa topoto la le man dinaa ko toppatoo fo kanaa ndax bu kenn des ñëpp si kana ñëpp mun a mucc yaace u ñini raŋo si dono mu ne nga def nga sakkee ko loolu rek utee i ka miŋ ñini li ngay ut i saa soto danga koy am i ka miŋ ñini li ngay ut atee toora la du la lor fente keeriŋ dara amut meŋ mu moo taaci loo xam ne doomi aadama mun na wax ne man maa ko moom moomu dara amut fi dara fente keeri min mu moo taati amul dara loo xam ne doomi aadama ko moom kanaa feññi ni faati kee taati bul ut dara ngir mu nekk sa moomeel nii be duniyaa kono su fekkee yaa ci biir aduna ñiniiroo kee sakkul na nga ut ye ñine fong la bataala nga fàtte sa coono bopp ye hakkiloo bulandi bataala doodu la waaye nga fàttaliku ñeneen ñi nga xam ne ñooy sonn ci sa wet ni wokkeda su loolu amee itale baa soto la yow yaay am yaale mu kilin ne ti ite fong mu kilin ne ti mu ne man mi benn la ite keenoo la moo fula di du ma a nekk ñaari nit de barisi fen soto waaye mun naa am dara min si jambee balundi loo xam ne mun naa dundal lii yëpp ñii yëpp mun naa nawo bekke la lan moo tax loolu du am wo man keela doo kuwoti loolu nekk suma liggéey man wonteela wo muy la nga niyo le loolu suma eene bi moo koy man de biri la bi da jambee balu gannaaw bi nga xam ne bëgg naa fi yëpp dundu ala ko janna balu wom mbaa diilee te yàlla ne yàlla ne ma dund fi yëpp dinaa dinaa ko teg sa loxo ala kakku ɗum kannoo maa koye dimbale koo xam ne ku kañaan la a yee baŋ bañ na kaŋan ye jawoo maa koye koo xam ne eene bu bon la am a yee baŋ mu ne bañ na ka faasaari laa maa koye koo xam ne dafay faral a yee baŋ mu ne bañ na ka tooñeeri laa maa koye koo xam ne tooñkat la di ko jàppale di ko dimbale ni wol bee a soto mu ne su fekkee ñii yëpp am nañ doole be foola wu ma ñan na foola dina am kuy ñàkk koo xam ne kooku warut a ñàkk dole ɓe foola dina am ku ñàkk min man ñanna foola koo xam ne kooku ta ñàkk nag an ɗum te ni moo kilin har jee diila su fekkee jox nañ la warsak benn nit ite balu yow dund nga ite balu la de doo dund de annu ala balanta te yàlla bañ na be moo faŋo e kayira soto doomi aadama am am a ñoom moo moromi doomu aadamam a yaatara fekk i ma ñiŋŋaniya enewlo li ko be o kayro soto la kooku dina war a am xeewal boobu moo ci baraajo soto nit dina am tiyaabu mi yeeban ala la jooro koo xam ne bañ na ci peyum yàlla min yeɓan alala joroɗo kan moye banci pewi yalla wole konto kuya koku motanga am kaña ile ɓan alala joroɗo litanga banci pewi yalla wole toñero bule kono lol mota toñnakki ci yow ile ɓan alala joroɗo na bugulo pewi yalla wole fasaro bule kono lol mota farfara am ci sa la ile ɓan alala joroɗo na bugulo yalla feyla wole buloja lol mota salaho bi daldi wow do joxe tabewlo dara wole buloja yo tabewlo dara doo joxe nsi feeroo kee nañ def kamte laa kattaan ngam fan di ñoo la nañu joxante suñ bopp ngam fan di ñoo la nañ joxante suñu bopp diwli yee fan di faalu la doom yi nañ jox seen bopp ñu jébbal seen bopp seen baay faal yee fan di diwlu la waaye bàyyi tamit nañ jébbal seen bopp seen doom yi nii boloo da su fekkee yow yaa am dëgg ñi yow ka wara ah mu ne sa sa sa sa sa naka in yoo ka wara sa cër dina dina rëy lool dina màgg lool wayatin na lool tax na ba si ñoolu yee fan di ñoo la ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkkandoor nañ joxante seen bopp si ñoolu yee fan di la dëkkandoor yi nañ joxante seen bopp ma wala ke de loolu lañ deful nag nkaa fole dañ koy wax rek waaye jëfuñ ko de nkaa dañ koy wax rek nkaa ntaa la waaye defuñ ko de e ko nga ko nga xam ku xiif ba pare i poosoo be faari sa poos baa ngay fes del iman konko bala ah kooku de moom mënuloo jël ci moom xiif iman dimbaala je ba yeelay ko doo jani ko ah yow gisuloo safara de waaye sa xaalis bi moom lakk nga ko ba pare lakk nga ko de jumaala maa ci kan moo ko be jamaala yaa ke ñu def nañ ko de ndaali baala le te yéen a ngi ci kawam benn tey de muna waaye ma ne alako yalla daf ne ma anfaqtum ma anfaqtum min shay'in min shay'in wa huwa yukhlifuhu fa huwa yukhlifuhu e gay ba kala nyaadi ñu ne ko nokoy koy defé ako huwa khairu raziqin mu ne wa huwa khairu raziqin rek aliye min ke dépense odi lepp lo xamne da ngeen ko finance ci dépense kuma kendo de kam fo moluma donte ci kaddu bu baax bu rafet bi ngay wax baara kendo de kamin ke mooli waaye jëf ci rafet bi nga xam ne danga koy defal nit ñi nga ne kendo de kamin di moolu la moo xam ene bu rafet bi ngay jox nit ñi lonti kendo de kamin fo mooli moo xam xam-xam bu rafet bi ngay jox nit ñi fa huwa yuklifu fa huwa yuxlifu ala ko yàlla ne yemin di li nga joxee ñow dii diile man dinaa ko remplacer lu mel noonu dinaa la ko joxaat ikaye ka kiñaaɗi ñuna ko no koye jo hoyno ko remplacé huwa hayru raziqi mune huwa hayru raziqi ndaba kela ñaami mannima koye defe naali yaake ñoye o ñaama su feke defan ken ko ɗon sen naali ɓe yala le dina juyo an ñoom kaadu nim ma mooma koye ndaxte suma dimbalut ken ni e kilindi nanga tandiila ah, su fekkee dimbaluma be ma dimbaluma la soo ma joxee man amila saliha soo ma joxee benn dama la jox fukk falahu ashru amsaliha falahu ashru amsaliha noonu la koy defee ala ka ka jawla ñaa yàlla ne noonu laa koy defee soo ma joxee jël benn ma fay la fukk wootuma kon nag jamaa fele mbooloo ngi nii ali naata ñëw ngeen ali féere kee na ngeen fexe nga ñoo korosi ñu setuwante nga ñoo long ñu xamante nkana ñoo tiñaa bu ñu yàqante nkana jutu ñoo la bu ñu xeebante nkana ñoo kóola di bu bu bu bu ñu joxante gannaaw naari janoo la mu ñooti mu ne suñu aljanna si suñu diggante la nekk ñun ñoon ñun ñooy suñu ala ye ñin noole moo gën a foo fen na yàlla mun na lii bu kenn ñàkk dara ni mu foote fen na ku ñàkk dara ala ko ye ko yàlla ne la ni ye bii ganta de de foolaa la ah su fekkee da nga wattu tey de doo ko ñàkk ye ñin na fen tey yaa yow ke wo moo lo ki nga xam ne xamul dara amul dara nga woon ko ne yow doo xam ne amuloo dara duma la doo ko yëg ite kanata yow da nga mucc ci ñàkk am dara ni sembentawu maa koy soo gisee koo xam ne ku lompoñ la ala koy sembetee dawanoo la de mu ne la benn doole du la mënaat yow mooy meewu menki lépp lu waaye def min bee tiñaa la li lay yàq imoo dada ah defar loo loolu de imoo dada defar loo loolu bare ye feŋ feŋ dadaa waaye lépp loo defar hani be tiñaa la donte da nga yàq wasiloo wonte waaye du yoon boobu ngay yàqoon l'islam daa du ngoñ ñi mu ne islam dafa wax ne udxulu fi silmi udxulu fi silmi kaafatan kaafatan ali dun l'islam yaa ko na ngeen dugg ci islam muumee dun la lépp na ngeen dugg bu ngeen dugg fale ngeen bàyyi fale dégg yente jaawoloon ne mu ne ndax xam nga moom noonam moom sëñ bi xam nga noonam alaay garam baay bete yaa den te alaaji karamba dafa baax man duma ko dee déglu nga meŋo meŋ jemmaa lamuy man lépp lu may def déglu ma ko billahi man fenje ñaaman bo min fi géñ naa man jisuma dara loo xaw me ñëw ma ko fen man ñambu fo abdoulaye suwaniya mu ne man de dara xeebu ma ko lu dul macha allah ñu ne kii mooy Cheikh Abdallah Karamba bari nte lafita min na waaye man li ma bugg mooy ina mina foññi ko balaa nga may wax i mu ñinti lii nga doon afon ñi keññinti nele man nel nekkal lii afonte keññinti defal lii nga nekk lii afon ñi man keññinti wax ko ne yow doo lii iman tiliñ jubuloo tooñaa ko waxal dëgg moolu fateema bàyyi lii ñu am jàmm gujawoo bu la bàyyi lu bon nin mbaadi man su ma amee mbokk de wala mun dabaadi kii mooy suma mbokk ku may diggal lii wala mun dabaadi kooku mooy suma mbokk ku may waxal lii ku may waxal lii yee jayi min na liñ la jayi a ko layaatala de mu ne dafa jafe de mooyaa baa diŋu jayi kiilaa ñaala mu ne am na benn waay bu ñëw di tagg mbokkam ci kanam yonent bi sallallahu a wa ah, yow rey nga sa mbokk mi de akaa ye ñemeŋ fo ñente a sonti ah, mu ne li nga wax ci moom di jikkoom de ye ñemeŋ fo teŋ li nga wax ci moom a jikkoo maŋ futa woon ah, jikkam bi agul foofu de woye moo tiñaa kooku dal di yàq nit yàq ñaañaa woña loo ko yàq yàq ni won taati su fekkee du loolu ete taa keenoo la wote yow doo ko mën a def loolu di li nga wax ci moom nga min di li ñu mun naa man noo su fekkee mun ala saa seneyandi yàlla dina ko setal bari nga min seneyandi waaye luy setal janni wo ka duniyaa moo ne balaa loolu di bett aduna ala baa yàlla dinañu ko woon a tollel wax waaye melul nii ci man de man yàlla melul nii ci wala nabluwannakum wala nabluwannakum mu ne hatta na'lama al mujahidina minkum hatta na'lama al mujahidina minkum wa na والصابرين والصابرين ونبلون أكباركم ونبلون أخباركم ولا نبلون ولا نبلون أكباركم أخباركم نوادنا ننجبرك دكاري واي إلى بدأ فنجيول ila bita penki yol mu ne yow borom alal nga bugg ñu maa kan moga na am yàlla moga moo ya nit moy dof rek ibe ibe jumaale la mi yaa ko ala ma kan ngay ñaan ku am kom ni mel anam i ka ni o ñini muntu foko koy sakk foo koy ume ala ñinoo mee dooyandi ma sakku yalla ut yàlla loolu tax nga soufel ya di minna na ala la di ala man ba ngaa bum mu ne jox ko ko jox te suwo kuutee maariyomu alati a ah, maariyomu alati mu ne guddina boromam mooy yàlla sa borom mooy yàlla ila har kan fula saliya fa ala en soolata kaariya min sota fula defal sa ñaari rakka nga ne yàlla li nga jox diw bugg naa lu ko ëpp ibaala na min duta ala bulu wala siyaadaay min ah, da nga xam ne lu yàlla dese loolu moo gën a lu bëri lu lu lu mu na mool sookuwo ka mool wala siida lu tax li ñuy may nii ñi loolu dinaa xañ ñeneen ñi pour ñu nelaw guddi suñ gisee loolu diw am na lii diw am na lii loolu loolu daf koy xañ mu nelaw guddi lu mën a nelaw guddi